ma dem laaj ko sama mbir ba xam man mën na mën na mën na maa tuub wala mënu maa tuub ñu tegtal ko benn nitu yàlla mu dem wax ko ko ne ko man kat damaa rey téeméer nit ñu manqué benn ndax bu ma tuubee yàlla dana ma jéggal mu ne ko yow rey nit ni mu toll kenn nit dong li ci yàlla wax rey ko ni mu toll nga rey téeméer nit yu manqué benn yow ko xamuma fenn fa la yàlla jéggale mu ne kon naa la rey mu mat téeméer gannaaw xas naa bay taq moom naa taq bu baax rek ba mu ko reyee mu mat téeméer te mu continuer di tiit ci boppam rek di xalaat rek ba yàgg mu am ñoom laajaat ne leen ndax xam ngeen fi benn borom xam-xam boo mën a laaj sama mbir ma xam mën na maa tuubam déet ñu am kuñ ko tegtal mu dem ca moom ne ko man na damaa rey téeméeri nit ndax suñ borom dana ma jéggal mu ne ko waaw kenn mënut a dox sa diggante njéggal yàlla loolu du dara ci moom daan ne ko da dem ci suuf soo xam ne musoo faa mooy yàlla barab boo xam ne musoo faa mooy yàlla daat koy wax ab barab na ko da nga fay dem ay nit a fa di jaamu yàlla boo àggee nga ànd ak ñoom di jaamu yàlla te suuf see nga defe woon ñaawteef yooyu bañ faa delluwaat mukk ndax suufus ñaawteef la ci yow muy dem foofa bi mu demee ba xaajal yoon wi daal faatu ba mu faatoo malaaka yërmande yi ñëw malaaka yi mbugal yi ñëw ñu di ko xëccoo malaaka yërmande yi ne kii moom xol bu rafet la faatuwaale ndax amoon na yéen yi génn ci ñaawteef yi mu nekkoon delluwaat ci boromam kon ci loolu lañ ko war a àttee malaaka yi mbugal na leen kii duñ ko àtte ci loolu donte amoon na xol bu rafet waaye lim def mus sa def lu baax kii ci lu bon dong la nekkoon kon lu bon loolu mu doon def ba noppi nga xam ne def na ko ba noppi moom lii da ko yéenoon waaye defagu ko kon ci li mu def ba noppi lañ ko war a àtte bañ nekkee ci loolu suñ boroom daal di yebal benn malaaka boo xam daa yor kaanu doomu aadama ñëw ne leen waa lu mu doon ñu wax ko lañuy ñuy werante mu ne leen man da am naa ci xalaat ñu ne ko yow waa waxal mu ne léegi nañ natt fi mu jóge ak fi mu jëm fu mu ci gën a jege ñu àttee ko ci loolu fi mu jógee fi la defee lu ñaaw li mu doon def fa mu jëm fa la amoon yéene def fa baax nañ natt ñaari barab yooyu fu mu ci gën a jege rek ñu àttee ko foofu bañ ko nattee mu gën a jege fa mu jëm ci sibra ñu daal di koy ñu ne kon nañ ko bàyyi ak malaaka yërmande yi ñu àgg ñu yóbbu ko ñu bàyyi ko malaaka yërmande ñu yóbbu ko kon loolu da yonent bi da doon jàngale nag da dara dara dara lu lu bakkaar rëy rëy rëy fu mu nit mën a jaar ci ay jaar-jaar yu doy waar rek na xam ne saa bu tuubee lee yàlla suñ boroom dana ko jéggal ndax rey nit li muy rëy rëy rëy wedd yàllaa ko gën a rëy te suñ borom daa waxoon ne yonent bi la lillazina kafaru in yantahu yuxfar lahum ma qad salaf ñi wedd ne leen saa bu ñu tuuwee rek li jàlloon lépp yàlla amatu ci soxla kon nañ xam ne suñ jamono jii nga xam ne jamono ju xat ju bari ay xat-xat la te ku ne xam ne ne da nga daan dégg ci ay ñaawteef yoo xam ne boo ko saa a dégg da nga toog lu mat fukki at wala ñaari fukki at door koo déggaat ñu àgg ci jamono joo xam nag daa jékki-jékki rek tegaloo bis bu set nga dégg loo xam ne danga nga naan lii moom tey àdduna dana tukki mel na yu mel noonu bi mu baree rek ci lañu yàlla tàmbalee woon boppam waaye nañu xam ne loolu la muy rëy rëy rëy rëy saa buñ maasawaatee ñun ñëpp rek ànd dellu ci suñ boroom suñ borom mën na ko fi jëlawaat ni nga xamee ne moom rek moo ko fi indi woon te moom rek moo ko fi mën a jëlee ba tey yonent bi sallallahu alayhi wa di jàngale ci tuub rek wax ne suñ borom day am na ñaari nit ñuy dem àjjana yàlla da leen doon reetaan ñaari nit yoo xam ne kenn ki daa rey moroom ja ñu ne yonent bi noonu nu mën a demee mu ne kenn ki daa rey moroom ja ba mu ko reyee ba noppi nag daal di tiit ci boppam daal di delluwaat ci yàlla di liggéeyal yàlla di def lu baax ba faatu moom itam ban dajee ëllëg ñoom ñaar ñu ànd dem àjjana suñ borom di leen reetaan kon ñu ñëw ci lenn ci njëriñu tuub ak ngëneelam bokk na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñii dellu ca yàlla bu ëllëgee ba ñuy àtte jaam ñi ak taxawaay yu tara yaag yooyu yépp ñoom duñ ca bokk ñoom dañuy jékki-jékki rek ñu yóbbu leen àjjana ñuy wax suñ borom naan ko ñun de dañoo déggu ñu ne jéggi siraat am na nangam am na nangam am na te lépp gisuñu ko suñ borom ne leen axakay yooyu yépp am na waaye yéen bi ngeen jaaree siraat jaar ci kaw sawara tax yéegu leen ko mooy sawara wi dafa fay dafa giim néew doole ndax nekk gu ngeen nekkoon di ay delluwaakon ci yàlla daan leen xanaa xamu leen ne sawara tàngooram bi commande bi nga xam ne moo koy moo koy yokk mooy bàkkaar bàkkaar yu bari rek moo koy tàngal ci nit ñi lool yéen nag néew gi ngeen néew ay bàkkaar ndax tuub gi ngeen saxoo woon looloo tax bi ngeen jaaree ci siraat yëgul leen na sax jaar ngeen ci naa lii Seydina Ali karamallahu wajhahu daan wax ne man de yéem naa koo xam ne mën naa mucc ba noppi muccul ñu ne ko loolu mooy lan mu ne nit ki li feeg ni nga bari lu muy dellu ci yàlla rek mën naa mucc te loolu lu ko yomb la kon nag saa bu mucc dee rek ak sàggante munta weesu loolu mu daan wax ne àjjana juróom-ñetti bunt la yonent bi salaahu salaam bunt yëpp dañ koy tëj di ko tijj léeg ñu tëj léeg-léeg ñu tijj ba mu des buntub tuub buntub tuub moom suñ borom dafa teg malaaka moo xam ne amul tëj waxtu wu rek waxtu wu nekk rek ñu ngi ko tijji di xaar ñuy tuub moo tax mu daan wax dee leen ñaan bu leen naagu mukk moo tax Sëñ Tuubaa bi muy jàngale mu kàllaf ni ni mu war a def daa wax na li njëkk a war a mu kàllaf mooy mu gëm yàlla ak ya ci aju yépp bu nappee di taxaw ci ndigali yàlla yooyu mu gëm di bàyyi ay tereem waaye nag di tuub waxtu wu nekk tey nangu ne moom moo matul tuub moom kenn ku ne dara jëm am rek ci la ak tuubam di dellu ndax yàlla ak xam kenn du ko munta jox ba mu mat leen lu nekk nag da cee def la nga man la ca des nga jéggulu ko yàlla moo waral gis nga julli juróom saa boo ñëwee julli julli nu julli ga rafet rafet rek nu julli ga mat mat rek boo sërmali looy wax astaghfirullah loolu li muy tekk mooy yow suñu borom kan ni ma war a jullee mënuma ko matale def naa sama kem kàttan nag li ci des nag ma ko jéggal te boo xoolee juróom ponk lislaam yépp tuuba koy mottali waaye dara jàmm mënu ko cee matal boo xoolee koor boo dogee yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu mu sunnaa loon ci boo koy wax boo dogee allahuma laka sumtu wa bika amantu loo koy daanale faghfir lii ma qaddamtu wa ma axartu yow suñ borom koor gi kat def naa li ma ci man waaye la ca waroon mu mat mu mënu ma koo matale kon nag li des nag ma ko jéggal gis nga natt asaka yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñ borom da ko waxoon ne ko saa buñ joxee asaka ba noppi na nga leen ñaanal wa salli alayhim inna salawaatika sakanun bu ñu joxee asaka ni ñu ko war a joxee na nga leen ñaanal ndax sag ñaan mën naa dalal seen xel yonent bi la mu leen di ñaanal mooy def ngeen li ngeen man la ca des njéggalu suñ borom dana leen ko mottalil bu ko defee seen xel mën a dal gis nga aji màkka saa boo ci jógee la ngay wax mooy aayibuuna taayibuuna aabiduuna li rabbina yow suñ borom ñëw nañ joxe sa farata ba noppi ñu ngi delluwaat nii waaye nag li ci manqué lépp ñu ngi la koy tuubal ndax ñun ni mu waree ñu ko defe noonu kon mel ni suñ borom daa binde jaam bi muy siir muy gàttañ lu maanaam nit ki lu mu def ci lu baax rek bu noppee dana gis ne nii mu baaxe nii mënoon naa gën a baaxe nii loolu suñ borom matam gi la ciy sàmm suñ borom matam gi kenn du ko ci fekk si jaam bi waxtu wu nekk rek suñ borom dana ko wan ne man dong maa mat moo tax saa bu julli ba noppi mu wan ko ne sa julli gi matul mottalee ko astaghfirullah moo tax boo sëlmalee rek astaghfirullah nga ci teg boo ajee màkka noonu boo nattee asaka noonu yeneen yu baax yépp noonu loolu matub suñ borom bi rek lay wane yonent bi salaa sallam mi nga xam ne moo gën a mat ci mbindeef yi gis nga moom nee na bis bi set danaa tuubal yàlla lu ëpp juróom-ñaar fukki yoon am fu mu wax ne danaa tuubal yàlla lu mat téeméer yoon moo tax suñ tubaa di wax ne tuub da am ay daraja am na juróom-ñaari daraja moom tuub daraja bu nekk nag ak ña ca toll ndax moom yonent bi salaa sallam ak tuubam dellu ci ne suñ boroom foo ko natt rek weesu na ko loo ko xam-xam-xam foo foo ko place boo ko wutal rek mu ëpp ko ëpp gi mu ëpp fi nga koy natt nag ak li nga koy jox ëpp gi mu ko ëpp nag la ca des moom lañu moom lañ koy tuubal kon ñi nit yàlla yi àgg ca yàlla def seen lépp ci yàlla ba jeex ci dañuy gis ne sax liñ def ñoom matagul ba léegi la ca des ñu di ko mottalee tuub moo tax kon yonent bi Omar ibnul Xattaab radiyallaahu taala daan wax ne dee leen toog ak dellu ca yàlla ndax ñoom xol yu set wecc la ñuy yor yoo xam ne di toog ak ñoom mën naa dolli sa setu xol sëñ Tuubaa ci am njàngaleem ci tuub moom wax na ne tuub moom waxtu wu nekk jaam bi da ko war di def muy waxtu wi muy waxtu wi muy jaamu yàlla daa war di tuub waxtu wi muy sàggane daa war di tuub daa war di tuubal yàlla digganteem digganteem ak yàlla li ci li ci li ci war ci ay njuumte diggante mag jaam yi itam lim ci toggoo ci ay njumte da ko war di tuubal boroomam ndax tuub mooy raxas baatinu nit ki te mooy biir nit ki ni nga xamee ne nit ki saahiram te mooy yaramam ndox moo koy raxas ba mu set dangay gis mu sangu sol yére yu set fi ne yaram woowu daa am lu mu ëmb te mooy ruuxu ak xol ci sekkarab xol ba tax ñuy wax waxta suuf di wax sekkare boobee doomu aadama bi ëmb nag nga xam ne moom mooy xam yàlla mooy texe mooy texe di secret boobu moom nañ koy yëpp sange ak di ko ko solal la yére yu rafet loola mooy tuub ni nga xam ne nit ki saa bu xëyee daa war a sangu ba set sol yére yu set noonu mu ko waree ci kawam gi na xam ne am na lu nekk ci biir loo xam ne noonu la ko waree te mooy roo xam gi saa bu xëyee war na koo sang ba mu set war na ko solal solal yére yu set loolu nag tuub la koy defee moo tax te te sax setu kaw gi setuk biir gi moom la war a jiital moo ko war a gën a yitteel ndax setuk biir mën naa yóbbaale setuk kaw waaye setuk kaw mënut yóbbaale setuk biir ndax xam nañ ne léegi la ay sangoo saabu xew ak yeneen yi nga xam dañ koy jumtukaay yi ñu jëfandikoo waaye bu njëkk mag ñi nga xam dañoo saxoon ci tuub daanaka satal ak ndox dong lañ daan sangoo te ko mën a xam ci ñoom ci sataay bu seen biir set moo yóbbaale setuk kaw gi moo tax Sëñ Tuubaa di wax ne